jërë jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak nun ci njolloor gi Assane Thiour moo nekk ci xarala gi ci ndimbalu sunu borom ak kattanam nu dellu si am yéenay jukkil leen xabaar yi. Ah, bokk na ci li njiit réew mi wax ne Kër Massar gee dañ ko bëgg yàkkali def ko département am ñu seen xam-xam màcc ci wàllu yaatal pénc yi ne daal am na lool kët daanaka jotewul daanaka ak ndox mi di law dara ndax bu fekkente ne loolu def nañ ko tam mbiri ndox yi di taw moom beneen beneen saafara lees ci war a mën a euh, lañ ko war mën jaare daan ci dikk léegi déglu ci Amadou seen ñaam yi nga xam ne xam-xam na ci wàllu fànn boobule dogalit ba tey bu mu jël ne dana ko def ay département euh, ca Kër Massar am na kenn kook moo tudd Alioune Diop bokk ci waa APR na loolu euh, fële ca mbaaw ne day tax rek yëf yi ñu fekkente ne am na ay béréb yuñ fa tabax yi fi day gën yokk ci wàllu koom daan ci dikk léegi Kër Massar am na fa mbootaay goo xam ne gi samp nañ ko duppee ko gaaw rek wàll wallu lu gaaw nit ñi am na ci ñooñ sax jëlee nañ leen ci ay kër ba jàppale leen dugal leen ci yeneen i kër ndax fi ñu toll nii luy jot jot na ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ñu yees ñoo xam ñoo gàddu doomu jàngoro ji am na euh, luy tolloog téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne fi toll nii wax nañu ne wér nañu lim bu takkoo tam wax nañ lu mu gàtt gàtt ñu ngi ci sawataas daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi dem beeg dikk bi transport bi ñu yore oto yi day am nañu mettit loolu nañu alkaati yi sonal nañ leen ci yow ci lim bi ñu yanu te am nañu ñu leen ko mayoon ba noppi ba nu woyofaloon ko waaye nag ba léegi daal njaw dafa dellu yaat desandi xam bin daañ ci dikk léegi toftal ci incha allah yeneen i xabaar Maodo Faye jërë ngeen jëf bokk yi ci ànd gi ngeen ànd ak noonu njiitu réew mi bi mu yëkkati ay tànkam dem seeti woon fee ci kër Masaar ñi nga xam ne ndox mi dafa lóor ba noppitam itam mëdd yenn kër yi moom am na ay kàddu yoo xam ne jot na ko fa rotal ne daal dana ko yàkkali def ko département loolee ñi seen xam-xam ci wàllu yaatal pénc yeeg yenn gox-goxaat yi nee ñu loolee daanaka laaliwul dara ak wàllu ndox mi ndax ndox mi moom saafaraam leneen la liet leneen la kii nga xam ne xam-xam màcc na ci wàllu fànn boobu li Amadou Sène Niang am na ay kàddu yum ci dénk El Hadj Malick Ndiaye ñu déglu est-ce que lii tontu la si inondation loolu problème la est-ce que lii ça découle d'une stratégie nationale d'aménagement du territoire beneen question la beneen question la mais aussi est-ce que sóor nañ ñi bu ñu ko modifier ñi dëkk ci zone boobu yëpp te am euh, carte électeur si si si ay ay zone est-ce que du am jeexital si si élection yi parce que ba ñu war a jur ñu defaraatal leen carte yu beex pour kii te loolu est-ce que xaj na fi fekk le 31 mars donc ay question la yoo xamante ni euh, amaguñ si réponse mais mais li ma si li ma si gën a jàpp mooy tey jot na ñu daal di bàyyi jël dogal rek def dañu war a dal réfléchir te bu ñuy dogal mu nekk de façon globale et pas de façon ponctuelle et un peu circonstanciée. waaw mais gis nañu tamit ne Kër Massar ginnaaw mbooloo ma fa yow tubaab fakal la macha allah wàllu ressource tamit naka la tuddee ci wàllu koppar yi pour mu dox loolu. waaw en tout cas euh, bu fekkee dañ koy def de dafa am coût coût bi euh, il faut que euh, certainement ñu évaluer ko si lépp loo xamante ne war nañ ko fa créer bu ñu nekkee département yi ñu jot a créer Sénégal mëtuluñu loolu donc il faut ñu xam laa lan la beneen amul euh, ressource propre donc soxlawuñu évaluer potentialité économique bi ndax malheureusement Sénégal département yi transfert la ñuy dunde mooy fonds de dotation ak produit coopération donc wàllu woowu eh, xanaa ñu changé taxe yi mais euh, loolu mooy mooy mooy mbir mi si wàllu wàllu wàllu ko waa léegi décision bi chef de l'état jël dem ban rapport la am ak xeex inondation yi. gisuma ko gisuma gisuma benn rapport ak loolu ndax pour man inondation kenn du ko réglé si euh, un peu découpage administratif inondation moom euh, yeneen yeneen xeeti réponse lay laaj mais pas découpage administratif. responsable bu nekk ci waa APR tudd Alioune Diop nekk fële ca Mbaaw nee na su fekkee def nañ département Kër Massar la muy yokk day mooy foofu dana mën a suqali lépp loo xam ne jëm na ci wàllu koom ñu déglu ko ci micro de l'initiation ñu ngi lu visitu président de la république bi nga xam ne moom la seet si ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndox mi ci département de Pikine ñu nammeeku ci waa Kër Massar président ba mu ñëwee Kër Massar jël na fa décision bu am solo maanaam départementalisation Kër Massar commune de Mass Kër Massar ñu yaakaar ne Kër Massar bu nekkee département dana may ñu am ay politique yoo xam ne social politique économique boo xamante ne askan bi nekk ci commune Kër Massar yëpp dana ci gis boppam ñuy fàttali ne Kër Massar su nekkee département dana ko permettre mu génne ci kilifteefu Pikine Euh, léegi li ñu ciy dolli rek moo di Kër Massar maanaam ci wàllu cosaan Kër Massar ci mbaaw la juddoo dafa nekkoon dëkk bu ñu tudde woon banxaas donc euh, ñu yaakaar ne tey jii bu Kër Massar nekkee département mbaaw ci boppam moo war a nekk chef lieu de département mbaaw bu nekkee chef lieu de département nag Kër Massar bu bees bi dana tax askanu mbaaw ak gox yi nga xam ne yëpp ñoo fi nekk ñu jariñoo ci politique publique yoo xamante ne économique et sociale danañ ko mettre en place rek laa ci gën a final ci maanaam wàllu paj mbirum wér-gu-yaram COPEGA département bu bees bi nga xam ne buñ ko sancee dina war a am lu bon bon cinq cent mille habitants un million environ ñu espérer un million d' habitants donc soo amee dëkk bu toll noonu ci wàllu askan war naa am hôpital bu mel ni euh, boo xamante ne am minimum niveau deux sans compter centre de santé yi nga xam ne dañ leen war a améliorer donc ci wàllu maanaam pàcc rek Kër Massar département bi war na am beneen xarkanam ci wàllu santé sans ñu boole ci infrastructure sportive yi yaakaar naa ne amuñu fi torop infrastructure sportive suivi pour xale yi war nañu jéem a xalaat stade de Kër Massar donc donte Mbaaw am na le stade de Mbaaw mais war nañu mën a gàmm jéem a xalaat nu ñuy yokkee am benn stade boo xamante ne dañ koy tuddee stade du Kër masaar ñoo xam nañ koy tuddee pour que mu mën a à la dimension yeneen département yi am stade ñu am stade bu mag jërëjëf ñoo ko déggandoo ñi ñoom wàllu la ñu duppee askanu kër Massar mbootaay googu naal ñoom samp nañ ko ngir dimbali leen itam eh, rek waa kër Massar ndax ñu bare bare ak waa société civile bi itam àndaale ci am na sax ñoo xam ne jël nañ leen ci béréb yóbbuwaat leen ci yenn béréb Cheikh Tidiane Dieye mi nga xam ne bokk na ci ñenn ci ñu samp mbootaay googu jokkoo ci ak Ndeye Mariam Ndiaye wàllu bi day li ko wundu yu bari ko d'abord ci télévision bi jafe-jafe yi ne suñu mbokk yi ñu ngi koy vivre foofu ñu daal di sol suñu dàll dem ba foofu gis ko fekk fa nag fekkin leen ci fekk nekkin boo xam ne bii benn doomu aadama mënu cee dund. ñu jàpp ne nag nit boo nekkee ci askan di ci dund même mala sax bu nekkee ci jafe-jafe war nga cee jéem sa kéemtalaay kattan waxuma la ak doomu aadama moo tax ñu lancé ak ñoo xam ne ñi ay jeunes lañu yu nekk Kër Massar ma leen di jaajëfal bu baax. ndax bi ñu ñëwee rek wax leen ni lii la bëgg ñoom ñëpp a jóg ànd si bépp parti politique bu fa nekk ñu teg mbiru politique ca côté daal di ànd ànd ak association citoyenne yi ànd ak artistes yi ñu teg comité boo xam ni tey ñu ngi wër ay kër logement yoo xam ni euh, ñu ngi foofu disponible te kenn nekku ca woon ñu recenser leen su ko defee ñu dem recenser aussi ay familles yoo xam ni nañu nekkee ci ndox ma mënul nekk baaxul te rafetul ñu génnee leen fa am na kër yoo xam ne dañu dem loué ji ko ci ndibbal yoo xam ne ay nit ñu ko dajale jox ñu ko ak ñun la ñu ca boole yenn yi dañu ko abal ay kër yoo xam ne abal nañ ñu ko léegi ñu ngi reloger nit ñi ci loolu loolu nag la bëgg donte def nañu ko ci ay quelques famille yoo xam ne loger nañ leen déjà ñu bëgg nag nii mën naa nekk comme def nañ ko tamu sotti wane na ni bu si sénégalais yu bari jàppee mën nañoo dimbali ay ay fukki fukki wala ay téeméeri téeméer yeneen famille ñu génn ci ndox ma nag ndax ku demoon ba fekk leen fa ñu nekk gis ni muy ballee ak ni muy yàqoo ñu nekk fa amatuñu courant amatuñu ndox dundin boobu mënatul continuer moo tax ñu ne nañ ci dugal suñu loxo lii nag initiative humanitaire la boo xam ñëpp dañ cee bëgg ànd ñu jàppale leen euh, du nekk approche politique ni rien du tout na ñëpp ñëw ànd si pour ñu jàppale askan yi ñu génne leen ci ndox mi parce que fi ñu toll amatul débat amatul ay conversation dootul jamono yu wax jamono yu jëf kese la pour que ñu génnee askan wi ci jafe-jafe yi ñu nekk Sud ci wàllu wér-gu-yaram Covid 19 bi wala mbas mi ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ñu yees yoo xam ni wax nañu ne euh, yore nañ doomu jàngoro ji ba ñoo xayma fukki yeeg juróom-ñeent sax wax nañu ne ci wàllante bi la docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak téeméer ak juróom fukk ak ñeent test yi ñu def ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am na ci juróom-ñett cas mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji. am nañ ci li ñu wooyee cas communautaire ñu ngi tollu ci fukk ak juróom-ñeent ci kaa communautaire yooyu seen lim ni la tëddee ci gox yi may waaj a tudd léegi Dakar Plateau am na ci ñett Saint-Louis am na ci ñaar Mermoz am ñaar Thiès am ñaar Mariste am benn Usine Benn Tali am benn HLM Grand Yoff am ci benn Yoff am benn Géejawaay am benn Rufisque am na benn Yëmbal am na benn Joal am na benn Mbour am benn Ziguinchor am benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak benn ñu nga ci réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak juróom fukk ak benn wér nañ si ñett téeméer ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñett junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñi des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé et sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen fàttali lii ba su tey nangeen ngeen aar seen bopp aar seeni i jaboot aaraale askan wi di bàyyi xel ci ñett mbir di sol seen masque ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo saa bu ngeen ko munee di jëfandikoo ndox ak saabu wala di jël gel yu baax yi di leen wax tamit ngeen bàyyi xel ci seen wér-gu-yaram te bu leen jël garab ci seen coobare bopp saa bu ngeen amee lu leen xeeb seen yaram na ngeen jokkoo ak seen i docteur wala bërëbu fajukaay ministère de la santé de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam ci wàllu dem beeg dikk yi chef euh, dem beeg dikk yi maanaam chauffeur si ak transport yi ñu ko yore daal fi mu toll transport en commun lañ ko duppee ci penc mi ñu ngi am lu leen naqari lool ndax alkaati yi daal sonal leen lool donte sax mayoon nañ leen nag ñu woyofal mbir yi mën a yeb ab lim bu takku. Adja Fatou Bari arrêté bu bees bi nga xamte ne ministre bi yor wàllu dem beeg dikk bi moom moo ko génnee te mu jëm ci ne lépp loo xamte ne dañ ko doon tere ci wàllu dem beeg dikk bi dañ ko daal di yëkkati mel na ni ba léegi coow li mu ngi ciy des di wëy. ma jàpp nañ ma ci fay ma kañ. barki démb. fan. Euh, Liberté 6 parcelle boo jaar nañ la jàpp dëgg dëgg na surnombre surnombre la ñu jàpp. fekk boobu arrêté bi génn na. génn yàgg waa ji di chauffeur bus di daal di nettali li mu dund fan nii ci tali bii mel na ni nag wetu ci. waa ji monté kër Badara nii la rangale 54 65 67 ñëpp mu raasale jàpp. yóbbu. moo ne de arrêté bi mu génn am na ñetti fan ci tey li muy wax moo di ne dawalkat yi mën nañoo jël ñi nga xam ne bu ñu duggee dañuy toog waaye itam ñeneen ñoo xam te ne bu ñu duggee du ñu am place maanaam dañuy taxaw chauffeur bus ligne 65 bii di jóge Colobane dem Kër masaar moom sax loolu la daal di appliqué waaye la ko ca dal neexul. bu ñu jàppee yóbbu ñu arrêté 2000 la ñuy joxe bu nekkente ne nag ñoom ñëpp am na ci leen lu ñu ànd moo dina ci diggante démb ak tay mel na ni mbir yi daal dina soppeeku ci tali bi. démb ak tay moom ñu ngi ñuy dimbali démb moom. mën naa leen aller retour ñu may ma jàmm. te dafa waaw waaw waaw. ñoom ñii nag di ñaan ngir ne bépp texte buñ fiy jëlati nañu fexe ba ñëpp di ci déggoo ba nga xamante ne jafe-jafe yi ñu am ci tali bi fan yi dootuñ ko dundati ñu leeral ni nag bu dee ne restriction yëpp daal nañ ko yëkkati ci wàllu dem ak dikk bi li di takku masque bi moom dafay wéy di nekk lu obligatoire képp koo xam te ne day dugg ci bus yi. Euh, taamu senegal ci wàllu tourisme la taxawal nañ ko ci weeru juin ba léegi ñetti weer yàlla nag gannaaw ba nga xamee ne euh, daal mbir mi door nañ ko teewul nag hôtel yi ni mu war a demee daal ba tey njaw desandi naw xam biin MSN na daal dañoo war a sax ubbi frontières yi ñu déglu ko ci micro Babacar Sam mais ñun ci suñu hôtel te yaakaar naa mën naa wax sax hôtelu tourisme yi nga xam ne moo nekk euh, ay balnéaire yu nekk Salima yu nekk euh, euh, Saint-Louis ma Casamance bon loolu mënul supporter seen charge parce que hôtel yi buñ ko defar ay ay milliards lañ ci dugal mbaa ay centaine de millions pour ce cas donc euh, bëgg nañ trop nag tourisme local bi c'est-à-dire gan yi nga xam ne duñu ñëw loolu mun naa compléter chiffre d'affaires bi mais mu téye chiffre d'affaires bi lii téye chiffre d'affaires bi xam ngeen ko mooy buy nit yi di ñëw Europe mbaa sax jógee Afrique te loolu tamit ñu ngi koy gën di yëg. donc mën nañ jàpp lu jëm si wàllu fréquentation bi des na bu baax a baax ci hôtel yi. Ah, waaw des na bu baax a baax. te tant que euh, avion yi commencé gunu daw c'est-à-dire aéroport même ñun bu ñu ubbee seen aéroport te ñële ubbiwuñu seen aéroport tamit. Eh, du du du dem fenn. mais war nañu gën a en tout cas gouvernement bi war naa gën a xool. ni muy defee pour avoir euh, aéroport même même relevé parce que ñun tamit ñu ngi ne ah est-ce que soxla naa réciprocité parce que quand même ñun ñii suñu économie ah, ci lu bëri ci gan ñi lañ doon compter mais ñun est-ce que ak yenn pays est-ce que ñoom moom am ñoo yem doole pour def réciprocité. Euh, ci wàllu euh, ñi nga xam ne ca Thiès dañ doon dem di xool béréb yi nga xamee ne nit ñi ñi nga xam ne ñoo def tuuxi doon nañu jàpp leen mooy kaso yi nañ fa nekkee prisonniers yi ak yu demee noonu mbootaay goo xam ne gii. ñoo fa demoon di ko seet di ko nemmeeku juróomi fan yàlla gannaaw ba nga xamee ne loolu sax tax na ki nga xam ne moo di soxna si ñu duppee Josette hmm, Marceline Lopez Ndiaye ak eh, ñi mu àndaloon ñu am nemmeeku gu takk gun fa defe dem xool nekkin waa tam bëggit ñu nu jàpp ba yóbbu leen ci kaso yi seenu nekkin gën a nekk loo xam ne lu lu nëtax lay doon Babacar Ndaw bundu xataal ak xoñoñal yu ñu faral di nemmeeku si bërëbu kaso yi commissariat ba si gendarmerie ak si Sénégal mel na ni diwaanu Thiès desu si ginnaaw kuréel gi ñu ko dénk gis na ko donte sax bu ñu sukkandikoo si ki ko jiite jàpp na ne wàññeeku na ci Sénégal Josette Marceline Lopez li ma remarqué daal wàññi naa ne léegi mu wàññi complètement sax parce que nit ñi léegi depuis que ñu ngi nekk fii xooxatal ak mitital waratul am te bu amee itam ah dañ leen di sanctionné. lu toll si juróomi fan mu def fa diwaanu Thiès jàpp na ni te si taxawaayu liggéey bi leen sant rawatina si biir kaso yi tey jii gis nañ si ay jéego naam waaye ñëpp ñu ci faral di joxoon ne dañuy bund xatal ñi yoon di loxo moo tax ñu gënaat leen tàggat ñaari fan la jël muy policier gendarme douanier agent eaux et ministère yi gënaat leen xamal leen seen liggéey. xamal nit ñi kan mooy observateur national ak euh, équipe am yi lu ñuy def seen liggéey seen prérogative seen waaru gaar won leen que fii dañ fi samp benn benn kuréel bi nga xam ne léegi day saytu ci kaso yi bépp euh, bërëb bu am ay nit yu nga xam ne caabi daf leen féete ginnaaw ou bien dañ leen téye pour seetlu ndax ñu ngi sàmmanteel seen axax yi ak seen yelleef. naam muy liggéey boo xamante du yomb ne jumtukaay yi des na waaye ba juróomi at ci décret présidentiel liggéey boo xam ne bu ñu paree rapport la jébbal njiitu réew mi ci réew boo xamante ne wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ba léegi ñenn ñu bari ñu wax dañ koy salfaañe way takk der yi lu si bari nag ñu leen siy tudd Babacar Ndaw Thiès Sud ñuy tukki di ko nëbb ba léegi jeexagul kat yëf yi euh, barki démb rek ci mujj am ñoon jàppati donte sax Covid 19 bi am na waaye te am na ñooñ ba léegi daal ñoom barsa wala barsaq yi dafa nekk ci seen xel rek eh, te war nañoo xoolaat nag mbir yi jafe-jafe naal chômage beeg ñi amadum xëy yu demee noonu nag te ñu war a xoolaat nag li nga xam ne moo jëm ci politique migratoire bi maanaam nan yan taxawaay yi jëm ci wàllu ñiy dem eh, ñu gën cee gën a taxaw bu baax a baax eh, ki jiite mm, ONG Horizon Sans Frontières Boubacar Seye jokkoo ci ak Mame Diarra Da Silva xam nga tey soo xoolee rek euh, le phénomène musu fee jógee tey la wàllu gën a aay seulement dañoo waxul nit ñi li am euh, parce que Sénégal aussi il faut rappeler que dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine li mu jël ci xaalisu bailleurs yi bëri na donc euh, finalement c'est des faux rapports pour naxaate mais tey li fiy jële phénomène bi mu fi moom mooy le chômage euh, des jeunes la pauvreté loolu jógewu fi foofu nag la ñu waxee ni ñun état du Sénégal dafa lajj dans la problématique euh, chômage structurel et endémique des jeunes damay wax ni l'ère post coronavirus suñu deful ndànk tey dina gën a intensifier le fléau sous l'aiguillon de la pauvreté parce que le risque boo xoolee yëpp day gën d'ailleurs même les indicateurs macroéconomiques yooyu yëpp dafa rouge donc ba tax na tey dëkk bu mel ni Sénégal effectivement phénomène bi dafay gën a yokk parce que tey les problèmes de mauvaise gouvernance yooyu yëpp tey le chômage endémique des jeunes yooyu yëpp dafa indi problème bi boo xoolee rek le taux de chômage entre les jeunes de quinze à vingt quatre ans dépassé na plus de trente cinq pour cent et c'est son niveau le plus bas donc tey phénomène bi day gën yokk parce que li ñu waroon régler xeex bi ñu waroon teg pour xeex ndool dañ koo tegul gisoo tout le pays est éclaboussé par ay scandale séddoo nañu xaalis bi lekk nañ xaalis bi soo demee ba nga xam ni tey ce qui dirige ce pays là alors que la jeunesse est là kon y a problème moo tax tey boo xoolee dëkk bu mel ni Sénégal suñu deful nànk rek émigration euh, clandestine bi euh, phénomène yi ñu fi indi comme conséquence dina gën a yokk surtout après l'ère post coronavirus Sud FM ganu bés bi. Amadou Sène Niang xam-xamu ci expert la sax ci wàllu lépp loo xam ne jëm na ci yaatal ay gox yu mel def ay département ay ak euh, sànni ay mbir daal yu jëm ci wàllu yenn gox goxaan yi def li département def la ca des loolee gannaaw ba Macky sàll président bi waxee ne daal Kër Massar des na ko def département ci xalaat yooyu ci la waxtaan ak El Hadj Malick Ndiaye. ñu ngi ak Amadou Sène Niang ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. yow nag euh, sànq moom Macky Sall dem ci Mali bi wax ne dafa bëgg a jël euh, Kër ma sax def ko département nga xalaat ne naka la war a demee ak naka la war a tëddee. waaw département euh, décret moo koy créé président mooy jël décret bi fekk euh, ministre bi def na rapport ak commission bi ñu mettre en place pour wax un peu xalaatam mais décret bi dina wax lan lan la département bi tudd lan mooy chef lieu bi ak fan fan la yem donc loolu am na ay conséquences. yu création département di indi benn bi mooy bu nekkee département nekk circonscription administrative dinañ am préfet am sous préfet si arrondissement yi mais décret bi dina wax yan mooy arrondissement yi nekk si département bu bees bi ba pare ñu créé sa ay service étatique yoo xamante ni si domaine yëpp urbanisme habitat santé hygiène yëpp dana te loolu baax na ndax euh, kuréelu état bi dañuy gën a jegeñ askan bi beneen bi mooy day nekk collectivité locale collectivité territoriale ñi ko ñu fal leen ñu am autonomie financière am ay compétence loolu baax na Mais la première, le, le premier problème qu'on en pose et que, qui, qui est posé par l'acte 3 mooy bu ñu dissoudre bu ñu laalee limite territoriale si département bu mu mënti doon bu ñu ko modifier dañuy dissoudre conseil départemental or si création boobu ñaari département moo séq zone boobu département Pikine ak département Rufisque le la le département de Pikine n'a pas de conseil départemental donc immédiatement bu ko laalee rek le conseil départemental de fi fekk modifié nañu territoire territoire am dañ koy dissoudre loolu aussi problème bu rëy rëy la ban solution lañ lañ si apporter mais yamuma rek si conséquences yi dafa am ay jàngat yu ma fi def mooy euh, euh, euh, est-ce que lii tontu la si inondation yi loolu problème la est-ce que lii ça découle d'une stratégie nationale d'aménagement du territoire beneen question la beneen question la mais aussi est-ce que suur nit ñi bu ñu ko modifier ñi dëkk ci zone boobu yëpp te am euh, euh, carte électeur si si si si ay ay zone est-ce que du am jeexital si si élection yi parce que ba ñu war a jur ñu defaraatal leen carte yu beex pour kii te loolu est-ce que xaj na fi fekk le 31 mars donc ay question la yoo xamante euh, amaguñ si réponse mais mais li ma si li ma si gën a jàpp mooy tey ji jot na ñu daal di bàyyi lu dogal rek def dañu war a dal réfléchir te li ñuy dogal mu nekk de façon globale et pas de façon ponctuelle et et un peu circonstanciée. waaw mais gis nañu tamit ne Kër Massar ginnaaw mbooloo ma fa yow tubaar fa kàlla macha allah wàllu ressource tamit naka la tuddee ci wàllu koppar yi pour mu dox loolu. waaw en tout cas euh, bu fekkee dañ koy def de dafa am coût coût bi euh, il faut que euh, certainement ñu évaluer ko si lépp loo xamante ne war nañ ko fa créer bu ñu nekkee département yi ñu jot a créer Sénégal mëtuluñu loolu donc il faut ñu xam laa laan la beneen bi département amul euh, ressource propre donc soxlawuñu évaluer potentialité économique bi ndax malheureusement Sénégal département yi transfert la ñuy dunde mooy fonds de dotation ak produit coopération donc wàllu woowu eh, xanaa ñu changé taxi yi mais euh, loolu mooy mooy mooy mbir mi si wàll wàllu wàllu ko waa léegi décision bi chef de l'état jël dem ban rapport la am ak xeex inondation yi gisuma ko gisuma gisuma benn rapport ak loolu ndax pour man inondation kenn du ko régler si euh, un peu découpage administratif inondation moom euh, yeneen yeneen xeeti réponse lay laaj mais pas découpage administratif. Amadou Sène Niang ñu ngi lay sant la gërëm bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.